nit ñi sonn nañu waa Yarax sonn nañu trop dañoo fat xam ñu nu ñuy def si àddina bi bokk bokkatuñ si dara nit ñi boo liggéey jë ba wàcc fi ngay jaar dem boo boo demee tamit fi ngay jaaraat dem soo ñibbee doo mën a sax wax doo mën a lekk doo mën naan da ngay egg rek tëdd kaawte amul dara mi ngi nii dafa dem kurus amul làmp amul dara ci ci danger la ñuy dem nii fi mu nekk nii waa Yarax sonn nañu tàyyi nañu ah pont de lu yàlla xam doy naa

te bu au moins suñu maire bu ñu doon dem géej dina xawa gaaw mais suñu yaay légui foog ñu yeew ay 7 h wala 8 h pour mëna dem geej en tant que président communauté de gestion élèves yi ñu ngi nii bu ñu pour yëg passerelle bi pour dem de l'autre côté déjà dañu am ay jafé jafé en même temps tamit aussi population bi dem marché su nga xamni fi fii Kapa dafa nekkon euh, point bo xamni ni daf ñu yomboon trop trop pour ñu jéggi rek dem même pas cinq minutes léegi dañuy coûter ay.

moy ñun dañu dëkk benn wàll c'est-à-dire war a fréquenter benn wàll wala di dem si plage bi di fa am ay soxla. ginnaaw yëngu-yëngal bi askan wi amaloon ci fan yu wees kii di njiitalu APIX Mountaga Sy ak préfet bu Dakar dalaloon nañu collectif des habitants de anne ngir andi saafara ci yile jafe-jafe waaye boobu ba léegi askan wi tekkaaral nañu gën a nemmeeku ndax dara antuwul si yooyu dige. au début gars bi ñëw di waxtaan dañu digoon nañu dina am passerelle.

mais ba léegi nii euh, directeur APEX demoon nañu rendre rendre compte ko wax ak moom mais proposé nañ mais ba dafa yéex daal parce que nit boo koy dimbali day gaaw te loolu tamit état war na ko war na si jàpp jàppale directeur bi jàppale maire bi jàppale député bi jàppale yaraax yépp quoi parce que fi mu toll nii foofu la ñu toll daal. ginnaaw cleaning day bi président Macky Sall lancé woon 4 janvier bi ñu weesu fii ci yaraax nemmeeku wuñ fi yëngu-yëngu bu am doole li ko waral nag mooy tàmbali woon nañ liggéey bi ci ab projet bu ñu dippee une semaine un quartier bu ñu sukkandikoo ci Babacar Meng di maire bu Hann Bel-Air loolu dafay loo xamante effectivement daf ñu ci fekk parce que nous avons def déjà ci annonce du jour de l'an ne que en tout cas le 4 de ci génn boobu fekk ne ñun clôturer une semaine un quartier déjà je crois quelques jours avant donc da fay lo xamantene def ñu ci fekk mais xam nga ay projet mom da ngay dox xool situation bo xamantene comme ni ma ko waxee sànq euh, tey Dakar il faut que ñu jug taxaw ci saleté parce que nit ñi li nga xamne mom lañuy def dañuy jël c'est-à-dire li nga xamne moy mooy ordures wala lo xamantene mbalik mbalit la d'une manière générale jël rek di sànni dans la ville té lolu c'est inadmissible donc tey toll nañu foo xamante ne tey toll nañu foo xamante ne euh, président de la république ba mu ko lancé ñun ñëpp dañ ci gis suñu bopp parce que gis nañu yeneen dëkk yoo xamante ne réussir nañ ko bu Sénégal yi bàyyi xel rek ne que le 4 janvier lay la ci am solo mooy chaque mois léegi demandé nañu en tout cas population yi à ce que ñu organiser pour que ñu jël benn samedi ci mois bi boo xamante ne dañuy nettoyer. Mon Babacar Mbengue nag te HLM Mariste la amalon cleaning day bi àndoon ci ak sous-préfet bu Grand Dakar ak ay agents municipaux yu mairie bu Hann air ngir dindi fa occupation illégale yu voie publique yi. je pense que journée de nettoyage bi nga xamné président lancé c'est une journée qui est très importante ñun collectivité territoriale ay structures décentralisées dañ ci obligé ànd ak ba tax na kérok

commission boo xamante ne mun naa commission de nettoiement pour ñuy mettre en place et bu ko defee daañu am également un agenda donc di profiter également euh, ci passage bi pour annoncer aux populations que daañu jël ñun tamit chaque samedi boo xamante ben samedi de chaque mois boo xamante ne dañ koy def ci li nga nettoiement donc loolu dafay loo xamante ne am na solo baaxoon nañu annoncer ko.

collectif ñoo lànk ñoo bañ daal di nañu réussir seen mobilisation mbooloo mu takku moo ñëwoon wuy ci seen woote góor jigéen ak organisation civile diggante place de l'obélisque jàpp RTS ngir rek daal di ñaawlu yokkuti courant bi ci beneen wàll nee ñu seen ñaxtu dinañ ko defee foofu ci wetu camp ngir rek ñu daal di bàyyi tamit activiste bi di Guy Marius Sagna ak yeneen naatangoom yi ñu jàpp tëj ràpp ci kaso bi ñu wax ci wàllum tàgget yaram doole ko ak Sadio Mané mi jël Ballon d'Or CAF Awards 2019 bi ñu doon joxe talaata juróom-ñaari fan ci weeru janvier atum 2020 fële ca Égypte. attaquant gaynde yu sénégalais yi nag nekk na footballkat bi gën a xarañ ci atum 2019 ci diwaanu Afrique ci kanamu naataangoom yile di Riyad Mahrez ak Mohamed Salah.

xam si 2019 bi mérite la daal xam nga di ko ñaanal di ko souhaiter tamit pour mu continuer ba romb eto Eto'o xam nga ak yeneen joueurs africains gis nañ ne Sadio Mané jël na ballon d'or bi sa diwaanu Égypte ñu koy rafetlu lool en tant que sénégalais luñ mun di wax daal mooy lu lu rafet la Sadio Mané def na wareefam. lu jeexalee ci wàllu nawetaan. ñii di waa zone 7A ak zone 7C bu Yara doon nañu amal seeni final zonal fële sa stade Alassane Djigo bu Pikine ci final zone 7A bi ASC Cité moom daa daan ASC Neexle ñaari bal ci benn ci beneen wàllu waa zone 7C ASC Jàlluwaale moom mujjee daan ñii di waa ASC Ferraille ci série penalty ginnaaw bu ñu témboowee ci match bi amateurs yi nag ak ñi di yëngu ci wàllu tàggat yaram di wéy di sàkku ci maire bu yaraax ab njeexital ci liggéey bu ñuy amal foofu ci stade municipal bi. déwén ñan ñaan nañ yàlla ñuy fubale suñu suñu dëkk si biir yaraax la ñuy sumb bi la ñuy sumb si yaraax muy suñu stade bi yàlla na ko yàlla mottali mu pare si jàmm. boo xoolee ñun yaraax lañ dëkk mais malheureusement dañu am problème mu terrain de football donc ñuy jógee yaraax di ñëw de pikin loolu rek ça pose problème. Euh, guddi la ñuy on joue la nuit souvent on joue la nuit donc football, Goudi, guddi dafay xaw metti te mouvement bi li ko polarisé yëpp ay ndaw lañu donc loolu ay jafe-jafe yu metti la muy problème infrastructure. c'est la fête de la jeunesse xale yi ñoo fête gi neex na ba pare ñu gën continuer message du may lancé au aussi itam xale yi ñu gën leen jàppale sur le plan sportif mooy lan am expérience infrastructure ak équipement sportif et inchallah en tant que maire daañu def subvention yi bu leen gissé ci zone bi ak ASC yépp yok nañ ko mais lolu aussi tam ñun en tant que conseil municipal dañu si gëna def lu ñu mën dañ ci taxaw bu baax baax mais en tout cas sport entreprise bu am solo la et dinañu bëgg vraiment li ñu gis xalé moon xale table ferraille ak xalé yi jouru di ko def vraiment ñun dañuy fier nek maire dañuy fier bokk yara parce que tay xalé yi honoré nañu yara à travers ça nak may remercier aussi le président, Maître Abdoulaye le président de la zone CXC, au nom de M. le maire. Et voyez la forte délégation qui m'a accompagné. Cela veut tout simplement dire que aujourd'hui, la mairie a, pris à bras le corps, comme elle l'a toujours fait, vraiment le, mouvement sportif de manière générale, mais surtout les navetans en particulier. Le fait que nous jouions Alsan Digo, c'est vrai, mais il nous Mais Inch'Allah, à partir de cette année, parce que bon, demain, stade municipal, commencé les travaux yi commencé nañu def pose gazon synthétique Inch'Allah, incha allah nawetaanu déwén le 2020 Inch'Allah, allah foofu lañ koy fubalee quoi. di leen jaajëfal mbokk internet yi jox leen dig daje dimanche prochain C'est seen beneen journal de la semaine.